mbokk yi incha allah ñu ngi war a jël ay juróom benn fukk ak ñett ci suratul ahzab ay 63 bi ci suñu borom di waxee ni yasaluka annaasu an issaa إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين kon incha allah ñu ngi ci ay ñu ngi ci ay juróom benn fukk bi ak ñett fi suñu borom di waxee ni yasalunaka an isaa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أقسم برمني يسألك الناس عن الساعة nit ñi day ñi ngi lay laaj ci bisu àllaaxira ba ci bisu àllaaxira ba qul innama ilmuha inda allah neel xam-xamu loolu day ma nga ca yàlla wa ma yudrika laalla saata takunu qariba ma ana lu lay mën a xamal ni mën na am day bisu penc nekk na loo xam ne lu jege la inna allaha laana alkafirina wa aadda lahum saira yàlla day rëbbana yéeféer yi mi ngi leen di waajal mbugal mu ñuy wax sair xaalidina fiha abada ñu sax ci mbugal moomu ba faw laa yajiduuna waliyan wala nasira duñu am ku leen di féetewoo wala ku leen di dimbali yowma tuqallabu wujuhuhum fi nnaar keroog ba ñuy wëlbati seen kanam ya ci biir sawara yaquluun ñiy bokk di wax ne ya laytana atana allah wa atana rasula ay waay aka neexoon ñu toppoon yàlla toppoon yonent yàlla وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا ñu ne yàlla ñun de dañoo toppoon la nga xam ne moom mooy sunu sang ye ci diine ak suñu kilifa ye ci àdduna fa adalluuna sabila ñooñu de ñooñu sànke ca yoon wu jubboo rabbana ay suñu boroom aatihim na nga leen jox di'fayni min al'azab ñaari ful ci mbugal mi wal anhum la'nan kabira ca nga rëbb leen rëbb goo xam ne gu màgg la yaa ayuha alladina amanu ay yéen ñi nga xam ne da ngeen a gëm laa takunu kalladina aadaw muusa bu leen mel ne ñi nga xam ne dañoo loroon yonent yàlla muusa fa barra'ahu allahu mimma qaalu mu daal di koy muccal yàlla te la nga xam ne ñi ngi ko doon wax wa kaana inda allahi wajiha ca moom day nekkoon na ca yàlla koo xam ne nii ku ca amoon ay daraja la ñi ngi noonu alayhi salaam bokk gis nañu mboolem yéeféer yi bokk na luñ daan sonal seeni yonent mooy kañu la bisu pénc mata hada alwaadu in kuntum sadiqin alaxira alaxira kañ la alaxira loolu ñi ngi ko doon wax ci ak yij donte ne ne gis nañu it ne lenn ci julit ñi loolu mën na am mu yitteel leen comme ni nga xamee ne yonent bi salallahu alayhi wa sallam mas na nekk ci benn tukki ànd ak sahaaba yi benn ci kaw-kaw yi nekk ca gannaaw bu mujj mu ne ya muhammad yonent bi alayhi salaam na ko naam sahaaba yépp am lu leen métti mu ne ko waa mata saa du su penc moom kañ lay yegsi yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko waaw loo ko waajal mu ne ko ah waajalu mool ko dara xanaa lu dul xubbullahi ah wa rasuli bëgg naa yàlla daal bëgg naa yonent yàlla yonent bi ne ko koo bëgg ngay àndal ëllëg yowmal qiyaama sahaaba yi ne waaji kat ab dof la waaye laajam bi am na solo kat ñu kontaan ca lool te moo di ne ne ñoom amuñu daraja yonent bi alayhi salaam ci jëf waaye yonent bi ne leen ki nga bëgg ngay àndal yowmal qiyaama donte ne la gën a am solo mooy la ko yonent bi jëkk laaj mooy loo waajal bisu penc te mbokk julit doomu aadama bi da ngay xam ne yow sa bisu dee mooy sa commencement bisu penc su ko defee julit bu nekk war nay bàyyi xel lan la waajal gis bu dee ñëwee muy war a daje ak boromam mi ngi noonu amma suñu borom mu ne xam-xamu bisu penc ma nga ca yàlla looloo tax ci xadis bu siiw bu ngeen yàgg dégg suñu borom yónni jibril alayhi salaam mu ñëw yor melokaanu nit fekk yonente baa ngi toog ak i sahabaam mu jël ay oomam sës ko ci oomi yonent bi laaj ko ay laaj bokkoon na ci lam ko laaj bi si penc kañ lay ñëw mu ne ko kooku day kii laaj ak ki ñuy laaj ñoo ci mbokk yem kon kenn mënu laa wax kañ la bi si penc di tabbi waaye nag suñu borom mu ne mën na am day jege na ca mbokk na am suñu borom bu dee day yónni ay yonent dem leen waax nit ñi ñu waajal bis penc di yónnee un dix cent dema dema dema dem ba ñu naan ar rasul ñi ci amoon ay risala matoon nañ ñetti téeméer ak nangam amma anbiya yi matoon nañ ay téeméeri ju nekk nangam su demee nag ba ne kii mooy ki mujj loolu mbokk day wane na kon mbir ba jege si na ngi noonu mbir ba jege si na loolu muy muy benn sunu borom it waxoon ne laqad jaat ashratuha ay mandargaam ñëw na yonent bi salallahu alayhi wa sallam waxoon nañu ci avant mu fiy jóge ne nangam dana xew nangam dana xew loolu mu waxoon lu bari ci ñun tey gis nañ ko nga xam ne nii moom ba mu fi jógeeg léegi junni at ak ñeenti téeméer tege na ci kon bisu penc bu jege woon gën naa jege si donte ne liñ la wax sànq lañ lay répété yow julit bul itte woo bisu penc itte woowul sa bisub dee itte woowul ci lan ngay deeyee law loolu moo war a nekk sa problème yow julit su ko defee suñu borom mu ne yéefir yooyu de yàlla rëbb na leen te mi ngi leen di waajal sawara bu ñuy wax sair wa aatadna liman kazzaba bi saati saira képp ku weddi bis penc soo ñëwee place sair lañ lay dugal na leen mos leen li ngeen nekkoon di ko weddi te maadaama ay yéeféer lañu bu ñu duggee sawara duñ fa génn ba faw duñu am ku leen di féetewoo wala ku leen di dimbali mu safaanoo ak julit bi nga xam ne saggan na ba tabbi sawara yàlla nañ ci yàlla musal su doon te ne yóbbaale na fa wéetal yàlla lu mu yàgg-yàgg suñu borom yàlla dana ko fa génne te yàlla rek moo ko fa mën a génne suñu borom mu ne maa lakum min dunillahi min waliyin wala shafia amu leen gannaaw yàlla ku leen di féetewoo wala ku leen di ràmm ku dul yàlla su ko defee kon mi ngi noonu amma yéeféer moom dafay sax ba faw suñu borom nee na seen kanam ya la ñuy jël di wëlbati ci biir sawara yeneen ci bi alayhi salaam nee na wax ju bon dañ daan wax moo tax seen kanam la ñuy dëpp ci sawara seeni tànk féete kaw ñuy wëlbati kanam ya léegi la ñuy roof ko ci place bi nga xam ne sair la fee jahannama la fee amoniak bala muy yahmum fee ma nga nekk ndox mu tàng ma ila axiri bu ko defee ñu naan aka neexoon ñu toppoon yàlla ca toppoon yonent yàlla te loolu mbokk julit la doomu aadama di ricc yowmal qiyaama kenn du riccu mankat topp ma woon imam caam topp ma woon imam saar man de lu tax bokk ma woon ci mbooloom sëriñ njaay wala mbooloom sëriñ sekk lenn dong la doomu aadama di rëcc yomal qiyaama ay waay aka neexoon ñu toppoon waxul ñu gëmoon de ñu toppoon ndax boo gëmee ci toppoo amul njëriñ ñu toppoon yàlla ca toppoon yonenti yàlla bi mi ngi noonu tey mbokk loolu di xéewal gu rëy asalan nit ñi daan dem ba mujj ñu mujj créer ay mbir yoo xam ne ñu jàpp ne ku ca bokkul nekkoo ci dara am na lu ñu tudde xutbu zaman am na ñoo xam ne seen waay mooy xutbu zaman ca amul lenn luy jóge ci yàlla di ñëw ci jaam yi lu dul ci moom lay jaar amul luy jóge ci jaam yi dem ci yàlla lu dul ne ci moom lay jaar waaw gars yi bu dee ne ñoo xam ne nii ñoom mosuñoo dégg kooku ci ay julit lañu luy seen mbir ñu ngi noonu ñu bàyyi ci xel bu baax sunu mbokk ba cheikh souleyman gay yal na yàlla jéggal ko te yërëm ko ndog yi ñuy organiser ci jàkka ji moo ko fi jëkk a indi mi ngi nekkoon kuwet la doon jànge nee na dafa toogoon dégg benn gàmmo bu gaa yi def foofu mu ne daal moom dana dem seetaan ko bi mu demee ñooñu ñi nga am benn tariqa waaja nga xam ne moo jiite tarixa bi bi mu génnee gaa yi di way di ko tagg ñu ne ko yow yaay teewal yàlla ci ay jaamam képp koo xamee ni nii dund na ci gëmu la ku mel noonu alkul nga moom su lee Cheikh Souleymane Gueye mu ne kon dawaa Sénégal alkul lañu ndax ñoom dëkk bi ci Kuwait wóor na le ne musuñu sax dégg dëkk bi waxumaa di xam borom dëkk bi jiite tarixa bi ba ba bay xam nangam ak nangam mbokk yi naka noonu tey ji da ngay gis benn waay nee nañ fii ci Dakaaru Njaay yàlla yónni na ko mooy xalifatullah fil ard di dégg ngeen looloo ah wallahi boo demoon biir Arabie Saoudite fekk fa lu ëpp ci ñuy dund Arabie Saoudite musuñu dégg turu Sénégal gis nga biñ ne guerre du golfe bi am na te ñun ñu yóbboon fa ay militaire ay casan militaire ba gars yi bombardé mu mooy dal ci ci dëkku Sénégal yi da ngay gis ñu bari ci nit ñi naar yi dañ doon dem di xool ay carte Amérique jàpp fa la Sénégal nekk gis ngeen ay kon mosuñu léegi sax turu Sénégal su ko defee li ñuy xam ñoom mooy Ifriqiya la ñu xam Afrique loolu nag mbokk mu lay wan xatal diine yàlla ji munul passé nga jàpp ni xéewali yàlla yi yàlla tënk na ko ci benn ci jaamam yi ñëw gannaaw yonente bi alayhi salaam yàlla xéewalam yi mi ngi ko joxoon yonente yàlla bi julit ñëpp bokk ci yem su ko defee doomu aadama bu demee bàmmeel kenn du ko laaj abubakar wala omar kenn du ko laaj imaamu malik wala buxaari kiñ koy laaj mooy yàlla ak yonente bi doomu aadama bu demee alaxira la koy texe texe mooy toppoon yàlla ak yonente bi la koy tax texee di mooy mooy yàlla ak yonent bi ak neexoon ñu toppoon yàlla ak yonent bi su ko defee bu leen yàlla dajale ci sawara ñu ne ay yàlla ñun day ñi ngi toppoon suñu sëriñ su ci diine bu dee ci yahudiya mooy ahbaar ya ak ruhbaan ya ak nasaraan ya na doon labbe ya cardinaux ya nga dem ci lislaam mboolem sëriñ bu woote woon mbooloo dajale leen au lieu mu teg leen ci li yàlla ak yonent bi bëgg xanaa mu créé ay mbiram daal di leen ciy gurgur loolee mbokk da ngay gis daañ bokk ci ñooñu di teew ci biir sawara su ko defee ñu ne yàlla ñi ngi toppoon ñi ñu yaakaaroon ci diine muy saadatana wa kumraana ak suñu kilifa yi jiiti woon adduna bi masalan firawna suñu borom nee na fastaxfa ah fastaxafa qawmuhu fa ataauhu firawna bi yàlla yónni Moussa génn na ci peuple bi discours leen kii li muy wax tegu ko fen naan yàlla la àndal waxam sax léerul amul dara takkul dara mi ngi nii man mi nga xam ne nii maa yor pale yi maa yor dex yi maa yor kasa ndax da ngeen ma jëndeeg waa ji gars yi na ah way wax na dëgg ah gis ngeen bàyyi Moussa topp ko suñu borom yàlla subhanahu wa taala nag ne bu ëllëgee li ñuy wax yàlla day ñañ yaakaaroon ci diine ñoom day ak sunu kilifay àdduna ya muy saadatana wa kubara ana ñooñu réeral ci sa yoon wii nga ñu tegoon ci ñu war caa jaar ay yàlla ñi nga xam ne ñooñu réeral day ci ñu nekk ak ñoom tey ci sawara yàlla jox leen duubul mbugal bu raw bi ñuy jox ñun soo demee ci beneen aaya suñu borom mu ne li kullin diafun yéen ñëppay am duubul mbugal nu am ndax ñoom jëfandiku woowuñu seeni xel jamono bi ñuy réeral jaamu yàlla yi waaye yii nit jëfandiku woo leen seeni xel bi ngeen di nangu bàyyi fi seen borom di toppoo keneen koo xam ne nii jaam la ne yéen borom boobu subhanahu wa taala daa di bàyyi loolu daa di ne ay yéen jullit ñi ñeenti ñeenti woote yàlla woo na ko jullit ñi ci saar bu màgg bi gannaaw ba mu ca woowee yonent yàlla bi juróomi woote mu ne ay yéen ñi gëm bu leen mel ne ñi loroon yonent yàlla Moussa te mbokk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam naafiq yi dañ ko doon sonal da ngay gis ne daana atte ba pare benn naafiq jóg ne atte bii day kenn saytu ci yàlla gis ngeen ila axiri da ngay gis ne daana jël di joxe gaa yi ñëw bundu xasal ko wër ko ila axiri sunu borom nag mu ne ee yéen ñi gëm bu leen mel ne ñi doon lor Moussa Moussa moom nga xam ne yàlla nettali nañu mi ngi naan ya bani israil lima tu'zuna nii wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaykum bani israil lu tax ngeen may lor te xam ngeen ne man yonent yàlla laa ci yéen ba pare ngeen may lor te loolu bokk na lenn luñ ciy wax mooy yonent yàlla Moussa dafa amoon kersa yaramam dara daaw ci feeñ ba da daan sax kaalaw di nëbb lenn ci kanamam gaa yi ne kii daal li tax nanguwul ànd ak ñun di dindi yaramam nii ca ñoom bokkoon nañ seen aada ñépp dañ daan gajo ca dex ga di sangu ñii ne dafa yaram bi normalement dafa am war a am ay ràmm yu ci nekk am ñu dem sax ba ne déedéet dafa am lii wala fi tudd xuuxaan mooy loolu moo ko dal moo tax nanguwul summee ko comme nit ñi di sangu sunu borom yàlla bi mu nammee setal Moussa ci loolu Moussa da daan bàyyi bi ñii bu ñuy sangu fi moom mu dem ci fu sori fu tee ko fa foofee la daan sangoo ca dex ga jël ay yërëm summi ko teg ko ci benn xeer naka mu dugg ci dex gi rek xeer bi bërimu rek départ Moussa génn ak yetam di ko dàq naan ko xeer sama yëre xeer sama yëre di ko dàq di ko dàq bañ yegsi ci benn mbooloo bani Israil ñoom ñëpp ñu gis ne yaramu Moussa kenn musul gis yaram bu rafete noonee dégg nga Moussa jël yëreem jàpp xeer ba dóor a dóor ba mu tëj ala kulli xaal mbokk mi ngi noonu suñu borom muccal ko ci loolu lool it la suñu borom wax ni bu leen mel ne ñu loroon Moussa yàlla musal ko ci li ñu doon wax te mbokk da ngay gis ne waa ji xelam neexul en général day fekk nit koo xam ne da ko waroon a bañ waroon koo weddi mu di ko tagg guddeeg bëccëg am naa ña nga xam ne ñoo nekk ci njub ñu leen di xas ka saboote guddeeg bëccëg te mbokk nañ de tere nga lor yonent yàlla lañ la tere nga lor bépp julitub yàlla jàngoon nañ démb ne kii lor yonent yàlla kooku rëbbum yàlla la ñeen mais kii lor julit kookit gàdd na bakkaar boo xam ne nii bakkaar la bu bu màgg bu feeñ comme na ko suñu borom yàlla di waxe suñu borom woowaat julit ñi ci ñaari woote yu tegaloo gis ngeen daa di ne ay yéen julit ñi yéen ñi gëm ragal leen yàlla maanaam jazakallahu xayran
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Thank you. إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما
suñu boroom jalla wa ala mu ne ya ayuha allazina amanu taqullah eyin ñi nga xam ne da ngeen a gëm ragal leen yàlla wa qulu qawlan sadida ca ngeen di wax wax ju dëggu yuslih lakum amalakum kon daan yéwénal seeni jëf wa yaghfir lakum zunubakum te it dana leen jéggal seeni bakkaar wa man yuti illaha wa rasula koo xam ne topp na yàlla ak yonentam faqad faaza fawzan azima kooko day texe ne texe bu màgg inna aradna al amanata ñun yàlla day ñoo gaaral li nga xam ne moom mooy ak kóolute ala samawati wal ardi wal jibal ca asamaan ya ak suuf ak montagne ya fa abayna an yaxmilnaha ñoom ñépp ñu bañ di ko gàddu wa ashfaqna minha ñu ragal ci kóolute googe wa xamalaha al insaan mu daal di koy gàddu ki nga xam ne mooy nit te may sunu bay aadam innahu kaana zaluman jahula moom day nekk na koo xamee ne nii kuy tooñ la nekk na koo xam ni ku réere la jeexitali tooñ yuazib allahu almunafiqina walmunafiqat ngiree ñu mbugal la nga xamee ne nii moom mooy naafiq yu góor ya ak yu jigéen ya wal mushrikina wal mushrikat ak yu bokkalekat yu góor ya ak yu jigéen ya wa yatuuba allahu ala almuminina wal muminat yàlla jéggal dulit ñu góor ña ak ñu jigéen ña wa kaana allahu gafuran rahima sa borom yàlla nekk na koy jéggalaate kuy yëramaate mi ngi noonu mbokk suñu borom day wax ne ay yéen julit ñi na ngeen ragal yàlla ragal yàlla mbokk mooy nga def sa digganteeg mbugulu yàlla barrage noo koy defee mooy def ay santaaneem la gën a màgg ci santaane ya mooy nga wéetal ko bañ koo bokkaaleeg dara taxawal julli yaag zakaat yaag aj yaag koor ya waaye itamit nga moytu bépp bakkaar boo xam ne suñu borom yàlla nee na ku ko def mu mbugal la loolu muy benn bokk na lu lay dimbali ci loolu suñu borom mu ne day leen wax wax ju dëggu mbokk julit xam leen ne doomu aadama bi du mën a baax comme ni ko yonent bi alayhi salaam waxe lu dul xolam dafa baax sa xol bii du mën a baax lu dul sa làmmiñ bi dafa jub te loolu da ngay gis moom la yàlla lënkale nee na quulu qawlan sadida yuslih lakum amalakum su ngeen waxee wax ju dëggu ma yéwénal seeni jëf te it en général mbokk foo fekk waa ju dëggu loo xam ne du fen néew na muy def ay njombe ndax wóor na ne bu ñëw it day wax dëgg gi loolee moom yu bari du ci dugg amma foo fekk ab fenkat booy seet njaalookat jàppal booy seet ab sàcc jàppal booy seet turiya jàppal loolu mi ngi noonu da ngay gis ay yéefér yu am jukko lislaam tey jii boo demoon fi mel ni États-Unis dañ naan la mën nga def crime bu rëy bu ñëwee wax la nga wax dëgg yépp loolu moo gën a woyef nga def lu tuuti ba pare fen liñ gën a bañ mooy fen te it mbokk loolu lislaam moo leen ci jiitu su ko defee julit day dëggu ca dëggu balaa baax ngay wax dëgg te bala ngaa wax dëgg da ngay xam loolu tax fen bi gën a rëy mooy bokkaale ak sa borom subhanahu wa taala mi ngi noonu la yàlla moom nga jox ko keneen kon nga indi dëggu borom bi ne su ngeen ko defee man yàlla may féetewoo daa di jubal seeni mbir seen mbir yépp baax yuslih lakum amalakum te mbokk doomu aadama mënul yéwénal jëfam lu dul yàllaa ko ci jàppale mi ngi noonu wa ma tashauna ila an yasha allah ñaareel bi su dee dëggu ngeen danaa leen baal seeni bakkaar ca itamit mi ngi noonu doomu aadama bi en général bu dëggoo lépp lu muy defati rek day nekk njuumte su ko defee suñu borom mu ne danaa leen baal lépp léegi nag yow mi nga xam ne da ngaa bëgg a texe sunu borom nee na ki topp yàlla ak yonent bi kii moo texe texe bu màgg jàng nañ ca gannaaw yéefér yi ne ca sawara ñi ngi naan aka nee xoon ñu topp yàlla ak yonent bi suñ toppoon yàlla ak yonent bi kon duñ tabbi sawara waaye mbokk xam leen ni yàlla yónniwul ab yonentam ngir mu régleel ñu problème mu àllaaxira kese déedéet yàlla dafa rek yónni ab yonentam ngir mu teg ñu yoon boo xam ni dañuy jëkk a texe ci àdduna avant alaxira suñ borom mu ne woon sunu bay aadama demal fa imma yatiyannakum minni huda yaag sa njaboot bu ma leen yónni aw yoon fa man ittabaa hudaya fala yadillu wala yashqa ki topp yoon boobu du réer ca du texee ji ngi noon du réer du texee di ci kaw suuf ak lu mu mën a nekkee du du du dund gu teey lay doon yàlla dana ko may xayaatun tayiba dund gu teey da doon góor wala jigéen amma mu ne fa man a wa man arada an zikri fa inna lahu maishatan danka mu ne ki won gannaaw saw yoon danaa xatal dundam xatal dundam ñu ne ah mais xoolal américains yi ak seen limousine yi ak seen gratte-ciel yi ak seen milliards yi mbokk da nga leen xamul rek waaye boo leen xamoon xam ne dund gu xat la ñuy nekk ay nit lañ ñoo xam ne bàyyi faaliwul doom doom mi ngi yàkkamti majeur ba ne bàyyi merde ka nga xamee ni nii mooy ay dëkkandoo xamante wuñu ay dëkkandoo c'est des fous solitaires kenn toppatoowul mbiri kenn mbokk dund gu xat mënta passé loolu am déet amma tey boo ñëwoon ci biir julit ñi gis ngeen yàlla mi ngi leen jàppandal ñoo bokk ndey bàyyi dajaloo ci jàkka yi di dimbalante di jokkoo loolu kon da ngay gis mooy dëgg-dëgg la nga xam ne ni moom mooy texe ba léeg-léeg nga gis ay gars yu nekkoon États-Unis di la wax ay américains yu mës a ñëw Sénégal luñ leen di wax mais yéen yéen lan ngeen di def Amérique seen dëkk boobu nga xam ne daanaka àjjane kaw suuf la ah ni nit ñi bëggantee jàppantee nan ngeen di ñëw di suñu dëkk bi lu ngeen fi wut ca mbokk loolu lan moo koy waral mooy li fi nekk kës néew ci ngëm yàlla ak topp yonente yàlla amma képp ku gëmul yàlla toppoo yonent yàlla loo mën a am ci àdduna du tee sa dund xat loolu moo tax kon boo bëggee texe yow la jeune ngallaawaay sa objectif ba mu nekk rek naa am CV boo xam ne diplôme bu ne dinaa ko uti man nga koo am ba pare doo texe bul ne naa engagé yu sur le plan politique xëy na su ma nekkee ministre mën ngaa nekk ministre te doo texe mën nga yor ay milliards te doo texe xam nga loolu lay texe texe nga dem ba yëg ne juboo nga ak sa boroom yaa ngi sax ci sunna yonente bi bu doon baykat nga bu nekk ci Kédougou tamit ci say tool da ngay gis na yàlla day féexal sa xol may la jàmm may la dal te loolu mbokk mooy jubluwaay bi nga xam ne moom la doomu aadama di seet ci kaw suuf kon suñu borom ni ki topp yàlla ak yonentam kii de mooy ki texe texe gu mag loolu tax boo yàggee teewe ay sëy da nga dégg imaam yi di ko tari ndax naam sunu yeneen ci sallallahu alayhi wa sallam moo daan def su masaan di wax lu ko ñor ci kanamu julit ñi fokk mu fàttali leen ay aaya ba nekk ci suratu nisa mi ngi noonu ba nekk ci ali imran ittaqullaha xaqa tuqaati ak bii nga xam ne moom la ñu jàng nii mu nekk suratul ahzab di aaya yoo xam ne ku ko settantal en général da ngay gis ne sa diine dana doon loo xam ni ju leer la ci sa biir xol borom bi bàyyi loolu daal di ne li nga xam ne mooy responsabilité responsabilité bi mooy lan mooy yàlla may la boyal la may lu autonomie ci ne kat samay ndigal a ngi nii bu la neexee defal ma fay la ajjana bu la neexee bàyyil sawara mi ngi lay xaar yàlla mu ne lii day proposé naa ko asamaan yi asamaan yi bañ quoi yàlla bàyyi ñu rek ñun ñu lay jaamu jaamu goo xam ne sañu ta bañ la looloo tax mbokk asamaan dafa am yéeg-yéeg day jaamu yàlla di sabbal yàlla tusabbihu lahu samawaatu sab'u wal ardu wa man fihin asamaan juróom-ñaar ak suuf lépp ngi koy sabbal suñu déggee doomu aadama yi naan yàlla am na doom borom bi mun a takaadu samawaatu yatafattarna minhu asamaan yi xaw nañu explosé biñ déggee loolu kon ñu ne yàlla daal ñu rek ñu lay jaamu jaamu gu sax te duñ la moy suñu borom ne suuf yow nag suufit naa yàlla déedéet man bàyyi ma ñu lay jaamu ci duñ la moy waa montagne yi nag suñu nga xam ne suñu borom nee na léeg-léeg ci ragal yàlla sax am na montagne yuy màbb wa inna minha lama yaxbitu min xashyati allah am na montagne buy dem bu mujj màbb ngir ragal yàlla gi mu ragal yàlla yéen nag ñooñu ñu ne ah yàlla ñun ragal nañoo gàddu responsabilité loolu sunu bàyyi aadama yàlla jox na ko ko mu daal di koy nangu te la yàlla dogal ci moom lan mooy responsabilité bi ko yàlla jëkk a teg ajjanaa ngi nii yow aadama fu la neex demal lu la neex defal bul jege garab gee rek gars yi li yomb la waay maanaam mi ngi noonu ngeen fexe mel ne yonent yàlla Moussa ba mu dajeeg bàyyi aadama la ko waaw yow yaay aadama la ko waaw yow yàlla dugal la àjjana sant lu dul bu lal garab bi nga fexe ba génn ñu fa mu ne ko ah aadama Moussa xanaa du yaay Moussa bani Isra mu ne ko waaw mu ne ko ah waaw lu yàlla dogal ci man nan laa ci man yaa ngi dégg waaye mbokk loolu mooy premier responsabilité bi ko yàlla teg aadama bul laal garab gi kese bul jege garab gi kese aadama non seulement jege na garab ga te bu ko jegee rek def na faute grave parce que yàlla dina ko bu ko jege mais non seulement jege na ko waaye dagg na lekk soxnam lekk gis ngeen loolu tamit mbokk ba ñu yàlla wàccee ci kaw suuf la ñu teg amaana boobu amaana bi mooy lan mooy ndigal yi ak tere yi ñu ngi noonu ndigal yaa ngi nii kóolu te la sangu leen set julli leen koor leen aj leen màkk kóolitele yu ñu yàlla teg ra- riba sori leen ko sangara carte njaaloo sàcc kóolitele bu ñu yàlla teg léegi nag suñu borom yàlla mu ne la ëpp ci doomu aadama yi zalum lañu ay toñkat lañu ndigal ye defuñu ko tere ye bàyyiñu ko lu tax muy jahul lañu mooy ah, képp koy mooy yàlla da nga réere ay xamuñu màggaayu yàlla bi ñuy bàyyi tereem di def ay ndigal ay bi ñuy non bi ñuy bàyyi ay ndigalam di def ay tereem bàyyiwuñu xarit conséquence li nar a am ci loolu loolu moo tax doomu aadama yi di sàggan loolu jël ci rek benn misaal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na nit ñi bu ñu xamoon danger bi nekk takkusaan jot na jullit amoo benn ngànt nga bañ a julli nee na yaa ngi mel ni ki tukki woon ba ñëw ñu ne ko sa njaboot gépp dee nañu mu ne ha ñu ne ko sa alal gépp takk na ñu ngi noonu bokk jullit ku xamoon ne bu ma nekkee ca match ba di seetaan football su ma julliwul takkusaan ba ma demee ñëw fekk saa waa kër yëpp dee ndax kooku dana faat takkusaan kooku moo tax suñu borom ne jahul la mi nga noonu xamul màggaa yu boromam xamul conséquence ba koy dikkal ci bakkaar boobu la nga xamee ne njaalookat yi la leen yàlla dig yowmal qiyaama lekkatu riba yi la leen yàlla dig yowmal qiyaama en fenkat yi la leen yàlla dig yowmal qiyaama su doon ñu ngi koy bàyyi xel loolu duñ ko def loolu tax zalum jahul loolu nag mbokk amaana boobu it da cay dugg xatta li ñuy dénkante suñu biir ndax xam ngeen yàlla bind doomu aadama def ci moom lu tax mu mën a gàddu amaana doo dem mukk di tukki yëkkati sa un million dem ca xa- xar ma nga yeew ca kër ga ne ko xar dénk naa la sa un million bi déedéet doomu aadama nga koy dénk kon ki ñëw dénk la alalam ki ñëw dénk la responsabilité bu mu mën a doon soo ko waree waral nga ndigalu yàlla subhanahu wa taala loolu tax mu bokk ci mandarga naafiq wa isatu min na xaana heure buñ ko dóoloo mu daal di wor la nga xam ne mooy kóolute googee waaye it li yàlla wax ne asamaan ak suuf dañoo ragal kóolute ngal la way yow jeune julit ragalal kóolute li ñuy wax toujours ndaw ñi ku ci mën a am liggéey boo xam ne nii du bokk ak gérer xaalis ngal la way demal def liggéey boobu bépp ndaw bu mu déggal kees gi kaay gérer ko daañu la fay trois cent mille par mois ak nga dem fee di liggéey doo gis xaalis weer wu dee ñu fay la deux cent mille dama naan la demal jël deux cent mille yi mbokk gérer amaana lu jafe la mi ngi noonu benn waaye ngi nii tëj nañ ko ci kaso bi def ko lu kenn xamul fekk ne lam gérer woon la imma bakkanam may na ko mu not na ko mu lekk ci wala ay nit nax nañ ko lekk ko comme ni ngeen ko bëri gis ay ñoo xam ne dañu leen naan ay jabaru ji nekk yu ngeen xamul lekk ko loolu lépp mbokk ay ay mbir la yoo xamee ni moo tax loo mën a daw ay responsabilité daw ko amma nag boo ko dawee ba daw ko nit ñi ñëpp daje wóolu la ci nga sukkandiku ci yàlla boobaa yàlla jàppale la ci waaye bul def mukk la góoru bann cam nga doon def ba ñu dajee seen coopérative ba di fal un trésorier ah ñu waa ku ñu def trésorier nag ñu am ñu yëkkati seen loxo góor gi yëkkati loxoom ñu naa waa nañ ko jox bay cam ba réunion bi pare nag mu ne maa ngi leen di sant di leen gërëm jox ngeen ma lu ma yàgg bëgg yaa ngi dégg waaw waaw waaw waaye mbokk loolu da ngay gis ne ku xam du wax loolu yaa ngi dégg képp ku xam dafa war a ragal responsabilité képp ku xam rek dafa war a ragal responsabilité ni ko asamaan ak suuf ak montagne yi euh, waxee lañ ca yàlla nattoo yal na yàlla jàppale ñu ci te xam leen ne yonent bi daal ko wax ne la nga xam ne mooy imam ab garanti la amaana la la yéen ñi ñëw di julli ci gannaaw imam imam muy wa responsable bu dee moom jaarale na mbir mi yoon moo xam moom am ngeen am na su ko sàggane it yéen mi ñëw ba bàyyi seen i itte topp ci gannaawam yéen moom seen warugar wàcc na yooyu yépp mbir la yoo xam ne dañ ci war a bàyyi xel bu baax borom boobu nag subhanahu wa taala mu ne def naa lii ngir mbugal naafiq yi góor yi ak naafiq yu jigéen yi ak bokkaalekat yu góor yi ak bokkaalekat yu jigéen yi te jéggal ña nga xam ne dañoo gëm ndax yàlla dafay jéggalaate ay yërëmaate te mbokk mi ngi noonu yàlla wàcce ay kóoluteem ci kaw yi jaamam wax naa la ko sànq muy ndigal yi ak tere yi moo am bokkaalekat yi ñoom seen mbir leer na gëmuñu yàlla ñu ngi koy bokkaale moo am ñeneen ñoo xam ne dañuy jël mbubum islam ànd ak julit ñi ne ñun ay julit lañu ca la yàlla digle defuñu ca dara la yàlla tere bàyyiwuñ ca dara suñu borom nag mu ne loolu moo tax mu leen di mbugal yowmal qiyaama ah la nga xamee ni nii mooy julit ñi nangu woon ñoom kóolu teg yàlla googe jëfe ko yàlla jéggal leen ca yërëm leen yàlla na yàlla subhanahu wa taala boo leen ci julit jëkk a gëm